noo ngi dagaan ci Moustapha mi nekk marwata aga xiyam di Moustapha sëriñ bi jeesul xarnu bi mbakke dangay boromi mboot te sag njaboot tawat di loot ñu def ma antar paret may lappatoo ba xarnu bi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 ku ñàkk yaay day nàmp maam buural te boot nu ngal la roggi nu mboolem xarnu bi fabal sa doom yi yépp boot ñoomit ñu mboot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi te fa murid yi sutural mottali jàkka ji nu foo tol dolli sunal daal ndax yàlla naatal xarnu bi mboole murid yëpp a ngi tuub te réccu bakkaar yi ñu jub balu nu bay du nu góob sëriñ bi jeesul xarnu bi wuy nu ni wuy noo ko torox yalwaana moo kula garab bu daanoo xob yalax bambaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu jirim garab yu ndaw yi di jirim meññeen ma mbir ma lëm lii rekk a dal waa bi allahu akbar allahu akbar allahu akbaru zamaan jamono moo mën a safaan xéewal yi daf daa walangaan ci debi booleem xarnu bi li beek ci keeki jafran lañ daa di woo muy walangaan nuy xelli kopp yan di naan watay gor ni xarnu wi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim tuum nanu landaa defi ko te muy lu neexuloon boroom njurbele wuutee xanu mi xéewal yi daf daawal wali ba woon ci nun di kel-kel yi moo tax ma jug di pel-pel yi sëriñ bi jeesul xanu bi xéewal yi daf daa wala nga wute ngaak seyaan xamu xurëk tundak seyaan sam ndoxa mandal xanu bi wàcc nga yow loo ma def nga ko jox ku mat a jox daawoonu nax daawoonu ñax seddoon nga mbooleem xanu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñi ngar wuddatul moo tax mana la suuxatal njëmbat li woon ci xarnu bi njëmbat li mooy gaa yi digoon daawut ci xéewal yi woon te ñi ngi defe ñu bon ngir ñàkk gi ci xarnu bi yërëm nu tey yaru nanu dootunu fo xami nanu dootu nelaw yewu nanu sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nan sun kër yi gàddaay def la sunu baay Tuuba di kër Bamba di waay sëriñ bi jeesul xanu bi wuy Mbàkke yuuxu nan ba deewal nu Mbàkke yuuxu nan nan ba dee yuuxu nan ba dee yuuxu nan ba dee yuuxu nan ba dee yuuxu nan ba dee wallu nu booyee xeenu dee kuy ràmm ku dee yaa ñu ci nun waa xarnu bi yow yaay donoy muhammadu cheikh muntaxa mbake teer nga serop ahmadu teer nga booti xaamidu man nga defar bi man nga defar bi teeki biir defar nga baadoolo ki buur yaa dindi àllar baag di beer sàkk muriiti xernu bi man sa kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loox fa diiwaan ñu ne waaw wax leen nu naatal xernu bi nan far wàññeeku tagg daam ngir moonu may lu jombi maam nan far wàññeeku tagg daam ngir moonu may lu jombi maam boole murid yuy daw diram ak cantawar waa xarnu bi mbakke ma nee misaal yaay géej war waa Sénégal defu la jàll ak genn duusa tooyal xarnu bi sëñ Bamba yaa diw mbambulaan ku la soobu dootu ñaani naan ku mandi dey jimbaani teen say gaasa mandal xarnu nun soobu nan la jàllenu waaye mbakke bul dem bayinu yowmal xiyaam yu baalenu te bu mbooleem xarnu bi géejug ikam gi ndaa dëtëm dañu ko secc moog ñoñam monsieur fu caa nandal ku xam doxeem bi doy na xarnu bi lum loona foore weyoon borom tuuba raam loona kàngam yi fi woon sëriñ bi daane na mbëri fi ne woon amul ci xarnu bi sarapandaar xam-xamam mëse fu caa natal wu ayam gi suure nañu ñam wu jëm amul ci xarnu bi fekkoon na ndab yi mu soppi leen wa tey du leen nga ne el bañ ñi sareet wàccoo naag xarnu bi borom tuuba taalif na mool yu feesi taax te xalimaam du juum du jaax tam xelam du gag du naax du fàttalëf ci xarnu bi day duusu dongay dëtam du see jalaa cib dënnam muy géej gu àndaalew jënam te mës a fer ci xanu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye borom tu tuuba moo jàll baax lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem ci xotti baax baaxaale gaañi xarnu bi ju ko sopp dal di baax waaju ko weddi dootu baax waajum gërëm muy gën di baax waayoo ko war na bi waayam du ñiit gari ci laax dootul limbooy sagar di daax loxoom du daa sooti ci paax ku weddi seetal xarnu bi ku weddi lii demal la gan isa di mbër mu manu gan yaram la wute naag sa gën bamba ko ñaan ci xarnu bi sëriñ bi yaa a bari njariñ fëriñ nga wute nga këriñ sëñ bamba yaa bari njariñ fëriñ nga wuute nga këriñ sëriñ si yaa di sëriñ yaa mën leeral xanu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondeel du mel ne lumière borom tuuba jant la moom jant la moo am faw xana gi dar na xarnu bi jant la moo xana weer leeram gi dar na xarnu bi jug leen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen dal di xam ne borom tuuba mooy borom tuuba bu leen ma tànqal na ngeen cellal ku jug na ni cell te bañ di tànqam lu ngeen xam tey borom tuuba maam Samba Jaara may leen te lii ma leen di yëgal lu bët gisoon la boon mu xëy di gis ko te lii jaglek borom tuuba te lii bu dee jib ba déggoog dëggi xol ya sa xoogam ngeen biral ne ka borom tuuba ci kaw sëriñ si ñu gis ak kaw sëriñ si ñu xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Tuuba jébbal ko jàkka ya sàkkoo jàkk taxaw fa gannaawam dëkke si kartana abarke borom tuuba te booba ñoo yay ku gis xutbub jamono bu am fi yow kalliwu ca jiital borom tuuba buur yàlla moo ko fi jiital tay ci kaw lu dulug settee te firnde lay leeral ñu wey tuuba ba buur namee jamonaam ji leer mu leeral a koy yonen ci leerug yonen soppe borom tuuba ñu ñëw ba wey ba rasulillahi fi ñëw ba defar la yàqu woon yéwénal mbooloo mi jëm tuuba muy ba saa ba ya wéy fekkoon mu bàyyi fi lool moo dikk leeral gannaawam ngir mi jëm tuuba muy ngir mu jub mu ne xocc si dëngul ku ca aw daagoo ka waaxu ba dem àndeeg borom tuuba buur yàlla may na ko yooyu yeneen ya ñoo ko amoon mu doon yu tas tey da ko booleel borom tuuba bayu mindee fi jikkoom yeneen ba moo ko jagoo mi yar ma ne mooy jikkoy borom tuuba xam-xam ba si saamoon ci yàlla muy lu tasoon diggante gaaña la booleel tey borom tuuba njambaar ga nooxun borom fergaat gu réy ga jagoon moom la yaaram ba jagleel tey borom tuuba hikam ya jàll keroog toofaanu jàll si tey ci xeeti ahmadu mi njiital borom tuuba lu doon fasaaxaak borom maasaar ga moo ko jagoo maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba fettuk suleymaan ga barkem baay catal xalimaam nguuruk suleymaan ga mooy nguuruk borom tuuba dabbu su muusa wa mooy dun xaafi ay dara tey dun xaafi ay dara mooy junjub borom tuuba wakiil gu mat ga ca ilias muñ gu wér gu rafet ga woon caayoo ba yooyaa nga ak borom tuuba ta tey dojag weñ la zul xërnay ni xëy saxaloon ta tey musal la sëriñ tuuba saxal tuuba alhamdulillahi rabbil alamin baril ak cant war nanu nun soppey tuuba buur yàlla mooy sunu buur yoneen ba mooy sunu njiit bambaanu boot bis ba nun soppey borom tuuba maam samba jaara may neena ba jiitu borom tuuba tofal ca gannaawam doy na yaakaar liggéeyal leen tuuba ki tuuba jërëjëf